C'est un fidèle à Balla Gaye 2. waaw yeneen a ngi génn nag yeneen génn ci gi. nga gis euh, lu ci mel ni ndox ak euh, fruit ñu koy euh, génnee lépp jëm nag ci sarax si ñu noonu nag di ko saraxee kaw bopp bi. mbaam mi loolu maa ngi seen Idi Sakho. ay gën a nga ne. rakku Sa la. rakku Sa Thiès ñoo bokk bàyyi. ñoo la nday koy jur. maa moom it démb gis naa appel am mais dama doon nelaw. gis naa démb may woo de xuma lu xewoon nag. Ah. dama doon nelaw de. Idi Sakho doon laaj. des na doon loo gis. déedéet déedéet du ma laaj loolu man kay lamb ji gisuma ci dara. Ah. lamb ji moom. yéen a gisaane kan nga de. non non gisaane gisaane wu ma. doo gisaane. bu ñu demee daal ba ñaari mbëri sumeeku. Ah. boo ma wooyee daal ma wax la ma wax la li ma xam sa maam da nga naan da daan seet waaw sama maam wàllu yu la da nga am nga ko rek kajoor ak ko rek waalo déedéet Cheikh Yérim Ndoubane Seck sama maam Cheikh Yérim mel en tout cas waaw surtout Cheikh Yérim la éy Khadim Anda Seck mii buuse lan lay saraxe buuse noonu ay pom lay joxe xoolal ma lu buuse di saraxe ay pom lay joxe ay clémentine maa la wax loolu naana bàyyiwul raisin ñamu suukar dafa baax a sar la ko daane. daan Elton. Elton. stade Léopold Sédar sa ba la ko daane. Léopold Senghor. sa combat Balla Gaye 2 ba. 31 mars 2018. maa la wax loolu. moo bëroon spécial ba. Balla doon bëre grand combat ba. ñëw fii ci arène daan fa guy ga. daan fa guy ga la grand baba bab xarit bi. la grand baba bab. champion bi très aigué guy gi. Euh, moom guy gi. moom mooy très aigué nee na. l'enfant tribal de moom guy gi. kooku waa Cenaba la en tout victoire waaw le daan brise de mer daan brise de mer da victoire bi stade la woon tamit Iba Mar kon yaakaar naa rek rek yàgg dafa marqué léegi di appartient tam Khadim Anta Seck yaaw yàgg naa dugg yem ndam la fa jëlee dëgg la fa la daane Jordan moom Jordan waaye Jordan Sa Thiès dane ah. benn adversaire moo ñu boole mën ak rek ko kan la mu ne Jordan ñu boole dëgg la man man Sa Thiès ni ma daane Jordan ak moom ni mu daane Jordan bokkul bokkul ñu ne ko noo daane Jordan mu ne ko jàpp daan ko ko jàpp rek sànni ko ñu ne ko Reug Reug nag mu daana joro mu ne arbitre yéeg a dimbale de ah. Sa Thiès sa wax de du samay kaddu sa wax de kaddu Sa Thiès du kaddu du kaddu Xaadim ànd Seck mu waaw mu ne arbitre yi moo dimbale Jordan mais Reug Reug daanul Jordan Eh. loolu Salif moo ko wax. Salif a ko waxoon de. moog Jordan nag Issa Demba Diop lan bëree. Demba Diop waaw da koo xalab rek sànni ko. maa la wax loolu jëlee bu rëy. moom moom Sa Thiès. premier combat am Casamance gëm dëkk la ko bëree. wax nga dëgg maa ngi koy Boy Diouf la fa ndem si yàlla suñu Modou Niang ka tëggoon. ndeysaan eh, may sëñ Modou Niang. ba fa jógee. waaw Iba Mar la ñëw Assane Ndiaye ka tëggaat. Iba Mar Diop. deuxième combat am la daan. wax fa jógee. ah ma nga fa daan Boy Ngaay moom Boy Ngaay ba mu fa jógee la ca teg eh le grand champion jël bu rëy ba eh xale booba mën ba doon bot maa la ko wax mu xajal ko bàyyi ko mu jàll Pa Abdou Fall la ko tëggoon moom Pa Abdou Fall ba mi tëgg làmbam tey moo kan moo ko yóbbu Demba Diop moo kan ah tonnerre eh la woon bis bu mag ba dañuy défilé l'enfant Pikine ginnaaw raay 4 avril 2012 ci la daan tonnerre ko jël bu rëy ba daan Zarko Sani ma ngay wax di daan Sani bot na ko yëpp waaj na ma waaj na ma ma soo laale sama abat laale sama de ma am na yeneen phase yoo xam ne dañoo taxaw dañoo taxaw ci seen ndax sax. Thank you. génn nee na 10 millions rek wala bëggul Noiro woo ma ne ma 3 millions lay teg moom nee na 10 millions rek wala bëggul non Cheikh rek kii eh, Ndiaga Balla mais tegul de

waaye Cheikh Reug Reug moom la mu waxoon nee na ma damaa gisul ku ma defanteel waaye kon ma defante mais Cheikh Reug Reug bu mu wax loolu gars yi defante yi bëri nañ de woon na ma démb ne ma nekkuma sax Dakar ma ne ko ah moom Cheikh bu Reug Reug moom ma ko wax ne ma nekkuma Dakar xanaa combat bi du ñëw dina ñëw démb démb la woon démb weesu na yaa nga ci tey la bis waaye suba la nettali bi de day la 5 mars histoire da koy bind l'histoire de Thiendra drapeau Yankhoba Diattara date historique ah premier ministre kooku amateur mënu ko ministre sport premier drapeau yow mii xaarim di wax waaw bis doo ko fàtte de déedéet la woon man mii hmm. la ci des bii 20 jours Sa Thiès la sëriñ. tey yaakaar naa nettal bi ah, xaadim si kanam lay leer. billaay tey la coow li. jot. waaw daañu xam kan moo daan. waykat ba nee na coow li coow ah. mu leer. léegi mu leer de. ba mu neex ko bu ne leer na ba noppi. leer na ba noppi. waaye lii leeragul de. gars yi bu doon lamb jigéen sax jeex na. waaye xaar mbay ma jaaga ma ko yal na ko yàlla yërëm bàyyi leen seen yaaba ji la wax te laale te tey moom yaa du fi am te sañ ñun ñoo sañ la yaa gi fii ñaar ñi am na ku yor ñaari layu de la génne ay layu la yor ñaari layu la génne xaar mbay ma jaaga yal na ko fi yàlla bàyyi laa la wax ndongo loo moo ko wax de njaga mbay a gaañu njaga mbay a gaañu Babacar Babacar de may déglu njaga mbay yàlla na ko yàlla yërëm xaar mbay ma jaaga mi ngi fi boo demee Tëngéej am na fa arrêt arrêt xaar mbay ma jaaga mama yaa moo ko defar maa la wax loolu yàlla na fi yàgg te wér moom xaar mbay sunu yaay tey jii lamb tey jii Kalidou da nga bëggee sarax maytul saraxu mbëri tey Kalidou Kalidou dafa xiif tey daal dama leen di ñaan ngeen meeru saraxu mbëri man ma xiif ndax wax daa metti sëriñ xiif nga sax yow man lekk naa ceebu yàpp fii tey foo ko lekkee oh, fee nga xamante ni fa lañ doon toggee fa laa dem xooli palaat bu baax ah, daal di toog xam nga maa bëgg a ceebu nga ma woote sëriñ sama ah, xiif gii ba léegi des na de ah ci xaadim xale guy gi waaw xaritu guy gi bi xam naa ko tur ba laa foote nit ku doy waar la kii xar fu xuuba yaa ngay dugg rek xam daa lamboo débat déeb de tey lamb tey sawaay dafa doy waar xaar yu ànd ku ko bañ ma fuuf ne la fuuf mu fuuf ne la fuuf te bu ne la fuuf saa yi mbokk daal jooy é eh, bu nu laa fuuf nga dem bàq yàq Sa Thiès Reug Reug mën nañu koo xaar ci kanam ak seen affiche point com ak seen affiche point com yaakaar naa fa ñu nekk ci diaspora bi ñu dem ci ñoom abo nañ ko xaar xaar leen ko la mi sekk fa nekk di leen bégal ak bu kandu ñoom ñoom ñoom Serigne Ndour ñëpp ñoom seen Kara Sène ñu ngi ci diaspora ñoom Toure Yaay Sarr sëriñ Kara Sène moom mi ngi fi borom Big Bawo waaw kooku yooyu kooku kenn du moom kooku moo mën ñëpp l'enfant chéri de Yaraax combat Tapha Tine rek bomba jël ma solal moom ma ko jox waaye kooku ndaanaan la moom sëriñ sëriñ Kara Sène mu baax mi sama tomaa janati la yaakaar kookoy chéri Bintu waaw Bintu mooy mooy soxna sa ku baax mooy soxna sa ku baax dem naa fa mu jox ma njaram sow moo xam ne day wax comme nit ku am yar moom Bintu waaw ah, jigéen da nga yaru teey yaru teey si yàlla defal jàmm ñoom ñaar neexi wax te bañ a wex boo waxee baaxul ndaa jigéen da ngay neexi wax